salaamaaleykum euh, mbokk Sénégal yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo di seetaan li nga xamante moom mooy seen télévision Sénégal 5 waa ni ngeen ko gisee rek ni ñu ko déggee tey euh, monde sport waaye tamit monde football Sénégal dañoo affecté à jour jours li nga xamante ni rek moom mooy euh, coupe du monde bi démb si lañ gisee ki nga xamante ni mooy Sadio Mané match bi nga xamante ni moom moo opposé woon démb si Bayern ak li nga xamante moom mooy Werder de Brême avant 20 de jeu ki nga xamante ni Sadio benn blessure boo xamante ni kat dafa dugal li nga xamante ni mooy askan Sénégal si tiit ak njàkkal du ma ne askan Sénégal sax mais monde football ainsi que li nga xamante moom mooy Afrique ndax Sénégal bokk na si yoo xamante ni kat euh, Afrique xaar nañ ngir mu sori mais est ce que équipe Sénégal boobu mën na dem ak ki nga mooy euh, seen leader incontestable ki nga xamante ni kat moom mooy star équipe muy Sadio euh, loolu kat la wër nga xamante ni kat suñu internautes yeeg suñu intervenants yi ñu wax ñu kat seen xalaat si blessure Sadio Mané absence du Sadio Mané moom dana grave ci équipe bi mais loolu moo football la ànd loolu moo ko fi wal le temps ñoo ànd des fois da ngay seen joueur bu mag bu nekk ci équipe boo xam ni moo boot équipe bi ñu dem compétir ci biir compétiteur bi mu blessé. loolu yàgg naa ma ah. Sadio Mané absent dana feeñ ci équipe bi mais comme que yàgg nañ ko gis ci yenn équipe yi tamit bu dalee ci kaw Sénégal yi jour yi jàpp ne bu Sadio Mané ñëwul sax ñoo war nañoo mën a gagné entraîneur bi tamit def ko ci boppam loolu laa gis ah. waaw mais dañ koy paree rek ndax avant la bu doon ci biir bi la problème mais avant la. préparation bi ñuy dem Sadio Mané ñëw ci kon dèjà xam nañu Sadio Mané kétti na bokkul ci compétiteur bi ñoom dañ ko def seen bopp. Sadio Mané day dem blessure boobu c'est pas grave dem ñu ko doon seetaan. c'est pas grave non non c'est pas grave benn contact bi. waaw moom sax moo def faute. mais xam nga jour day tollu benn moment boo xam day fatigué waaw da di noppal grand jour yu mag yi ay match yi démb Bayern ñaar la door 7. 6 6 1. match bi y pas danger mën nañu ko noppal. parce que c'est notre Sadio national. non man gisuma si benn inconvénient ndaxte bon c'est pas parce que Sadio Mané bu fubalul rek bon que Sénégal warul mën a am ndam si kaw si kaw Hollande wala warul mën a sori ndaxte boo seetee euh, joueurs yi nar a euh, fubal yëpp boo seetee si mag lañ nekk comme Sadio Mané bon donc dëgg si lam-laam ñu si coow bëri na mais c'est pas parce que Sadio Mané bu rek Sénégal warul wala warul mën a am ndam si kaw équipe yi ñu wax Hollande. bon xam nga c'est parce que xam nga Sadio Mané leader la si équipe bi est-ce que yaa ngi bon joueurs yi bëri bon Sadio Mané di football ñu si bëri dal ne encouragé à ce que bon bon mais c'est pas parce que Sadio Mané dafa blessé war waru football rek man jàpp ma ne Sénégal warul mën a sori quoi wax dëgg fa yàlla franchement ndaxte joueurs yi nar a football joueurs yi dem mondial yëpp si équipe si ay club yi mag lañ nekk comme Sadio Mané. si xalaat daal mooy bëriwul parce que Sadio Mané du moom kese moo fi nekk. waaw am na ñu fi nekk waaw ñu bëri Sadio Mané tey su blessé tamit Bamba ji a ngi fi ñeneen ak ñeneen a ngi fi booy yooyu yëpp xam nga booy yu taxaw lañ ay Pape Gueye boo yooyu yëpp taxaw nañ gars yi fu ñu jël Sadio Mané teg ko foofu Sadio Mané mën na football mais suñ basé aussi moom rek Sénégal du dem waaw yàlla nag mooy dogal waaw yàlla mooy dogal mooy ne lii nii si si kii lay si kii lay jeexee kii mooy tax ngeen def lii kii mooy dugal lii kii mooy def lii waaw bu gaañoo c'est le Sénégal ki gaañoo waaw. mën nañ nga Hollande sans changement ne. waaw saa da ni Sonko est-ce que dina nekk président 2024. waaw wax bu yàqu la. équipe bi saa waay ñaata yoon la Sadio Mané toog football équipe bi doo gis jeu Sadio Mané mooy région Sénégal li waaw mooy suñu Neymar mooy suñu Mbappé mooy suñu Messi ñun Afrique sax laay wax ñun moom la ñu am. pour l'instant pour l'instant uh-huh. sans Sadio Mané équipe du dox. du kon donc c' pas parce que Sadio Mané dafa blessé rek pour man warul euh, mën a sori warul mën a am ndam si kaw si kaw Hollande quoi ça ne veut franchement man am naa si yaakaar que Sénégal dina sori. non non que war nañ mën a sori bien sûr bien sûr bien sûr. pour Bayern na fokk mu utiliser ko ndax jour Bayern la Bayern doo ko jënd pour mu foolal ko. Bayern na il fallait que mu utiliser ko mais Sadio dama ne la bu ñu demoon compétiteur mu bi laa. foofu la problème foofu lay ëpp problème. Mané nga wax ba nga ne Sadio Mané rek la posé problème bu doon bu doon bu doon yeneen joueurs yu blessé Idrissa Gana Gueye barki dem na match Everton te dafa a dem coupe du monde na problème. Sadio Mané mi nga tudd Sadio Mané moo toll noonu équipe suur mag la bu ñëwee Sénégal Sadio Mané la ñuy wax loolu moo tax bu blessé foog média yi wax ci ah waaw ah, laa gis boobu. mais bu ñu jël affaire bi jël décision bi ne Sadio Mané Sadio même Sadio Mané su blessé tamit mais nañ jël ñu fi nekk ñu yóbbu leen ñu testé leen. ñoom Gana Gueye ñoom ñëpp si équipe bu mag lañ nekk comprendre kon Sadio Mané dàqu leen football waaw Sadio Mané xëy na dafa leen ëpp xadar ba ëppleen leen jaayante waaw mais loolu noonu tey booy su suñ gisee tey nu ñuy waxee Sadio Mané nii di gëm Sadio Mané nii xam nga booy suñ xoolee loolu tey jàpp ne Sadio Mané ah blessé blessé na tey ñu jël nit remplacé ko place su Sadio Mané tey kooku day def day bëgg a day bëgg a comme lu doon Sadio Mané doon def.